mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte euh, bu mag a mag a mag euh, dellu si ak yéen ci seen émission Faram Fàcce nga xam ni dañ koy def euh, daanaka àllarba ci waxtu bi lañ ci ànd ak yéen muy émission bu yittewoo tolluwaay réew mi di ko waxtaane ak ay ganam loolu mooy li yëkkati seen émission Faram Fàcce ñu koy amal en direct nag àllarba bu jot di. dalal ay gan yoo xam ni saa su ne dañuy njoxt rek ni ah, ci seen xam-xam ak seen xalaat ah, dina leen doy yéen ñi seetaan ci gindi leen ci tolluwaayu réew réew mi loolu mooy li indi émission Faram Facce ak télévision Futur Média ah, tey nag ñu ciy recevoir ndaw boo xam ne ràññeeku na loolu ci wàllu politique Toussaint Manga lay wuyoo moom Toussaint Manga moomu nag la ñu fas yéene dalal mbokk yi tey ci seen émission Faram Facce ñu ngi leen nuyu monsieur Manga Toussaint maa ngi lay fay Pape mhm. di nuyu téléspectateur TFM yëpp di nuyu sénégalais ak sénégalais yi nekk si biir diaspora mhm. voilà. merci beaucoup euh, Toussaint ma wax ni nekkoon nga secrétaire général bu UJTL jiite woon nga itam mel nekkoon nga honorable député à l'Assemblée nationale am na yeneen ndombo tànk yoo xam ni itam amoon nga ko. waaw nekkoon naa tamit député parlement Union africaine. Mhm. nekk euh, à Johannesburg. Mhm. bon parcours syndical tam nekkoon naa responsable étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. Mhm. précisément faculté de médecine. nekkoon naa tam responsable du parti démocratique sénégalais à Ziguinchor. Mhm. d' accord nekkoon naa tamit secretaire général adjoint du parti démocratique sénégalais chargé de la jeunesse. d' alors Toussaint man jàpp naa ni kon ndombo tànk yu bari am nga ko ci parti bi nga xam ne mooy PDS yow. ndombo tànk yu bari takk nga ko ci à votre âge maanaam ci sa ci sa ci sa âge. mën nañu wax ni ndombo tànk yu bari takk nga ko ci parti bi. bien sûr euh, am naa ci ay ndombol tànk yi bëre am naa ci parcours boo xam ne tamit euh, parcours boobu ñu ko am bëriwul. Mhm. effectivement d' accord comme ban parcours par exemple. non xam nga euh, politique dafa am ñoo xam ne dañuy teel dugg ci langue politique. Mhm. donc boo ci commencé en tant que jeune très am na ay étapes yoo xam ne mën nga ci jaar. donc muy d' abord euh, dama teel a intéressé wu mbirum politique en tant que élève. Mhm. bu ma ñëwee université nag ci le engagement bi gën a fës euh, ma am ci parcours en tant que étudiant am ci parcours en tant que jeune. Mhm. donc am na ñoo xam ne bu muy dugg si politique dañuy ñëw peut-être euh, à lage adulte. dugg si les affaires politiques mais man dem ci am particularité boo xam ne dama am jaar-jaar. Mhm. balaa may dugg si politique bi dama nekk njëkkoon nekk leader syndical université. Mhm. engagé engagé ci trop. boole ci woon sax même en tant que responsable en militant euh, parti politique mais nekkoon leader leader leader syndical. d' accord alors parti bi def la confiance vraiment quoi en tant que ndaw parti bi di PDS nga xam ni parti icône la euh, ci politique ci Sénégal euh, jël ndaw bu mel ni Toussaint Manga def ko confiance vraiment ndombo tànk yooyu yëpp JTL. Euh, ak euh, par exemple mel ak yeneen euh, yenn ba ci député ba ci législature bu mujj bi yaa ngi woon ci liste nationale bi c'est-à-dire je pense que parti bi deselatu la dara PDS. oui jàpp naa ni tamit sam parcours politique ci biir PDS tamit wane wu ma fa loo xam ne nit na ma xeeb. donc euh, dama yàgg jouer sama rôle euh, responsabilité yu ma jot mu a am si biir parti démocratique sénégalais dama ko yëg a mës a assumer donc je crois que tamit euh, sur ce plan la jeune ne me reproche de rien. d'ici par exemple UJTL daanaka ci say loxo la mujj UJTL say loxo la mujj non. oui nekkoon naa responsable UJTL mais mujjul sama loxo actuellement am na ku yor UJTL. ah mais da non cest à li ma bëgg a wax mooy UJTL. Hmm. même bu muy génn ci sa loxo yow. est-ce que def nga ci loo am nga ci bilan bu ñu mën a teg loxo. sëñ bi loolu moom euh, euh, sénégalais ñu ngi seetaan. waaw en tout cas jàpp naa ne bu may yor JTL maa ngi koy yor euh, si jamono entre d'abord 2013 la <coughs> bu Baara Gaye di dugg kaso la mm-hmm. géré. JTL Euh, non dama gérer intérim bi d' abord. Mhm. parce que avant loolu maa nekkoon numéro 2 UJTL. Mhm. Euh, bu baaragay duggee kaso ma nekk intérim gérer intérim bi après baaragay bi mu génnee def ci quelques mois ma nekk responsable. mais lu ma la mën a wax mooy fi tranche boobu lu mu ci naroon def comme en tant que jeune ak responsable politique def naa ko. Mhm. ba mu jaral ma. jaral ma gars yi ma kaso man cinq garde à vue laa am ak deux mandats de dépôt. waaw benn bi maa ngi koy def maa ngi ci def dix jours génn ñu ngi janvier ma génne la 8 février xam naa gars yi ne saawaay moom bu mu fa demee yàggu yàggul nañ dugalaat ma ñëw def quelque quelque quelque un mois laa def à peu près ñu jël ma dugalaat ma defaat fa 11 mois te mu lay wax sama jugement yi ñaar jugement yëpp non-lieu laa am xam nga na waar mais ñaar yëpp non-lieu laa am ak yeneen garde à yoo xam ne dañ may jàpp ma def ci 3 4 jours gars yi libéré ma. waaw mhm. d'accord alors. parti boo xam ne yow li nga si war a def jàpp nga ni def nga ko ñoom aussi li ñu war a def def nañ ko lan moo tax nga jékki-jékki démissionné ci parti bi parce que bu ñu jàppee boobaak léegi war na jege 3 ak 4 mois lan moo indi nga génn ci PDS. waaw euh, Pape li ma may tuuti xam naa lu mu lay wax <coughs> dina la bett tuuti euh, dama jàpp ni man boo nekkee fenn. Mhm. Euh, nga dund ak ay nit lu naqari nga dund ak ay nit tam lu baax. ak lu mhm. neex. boo ci génnee war nga mën a am un peu de décence toog di expliquer ci média yi problème yoo xam ne c'était à l'interne. waaw parce que da nga ci dul am argument da nga ci dul nekk à l'aise. si si loolu dama bëgg dama bëgg. dama mhm. bëgg ci mhm. doxalin politique. waaw ñuy bàyyi waaw boo nekkee fenn ba génn. waaw waxuñu nga wax ci lu bon. taxaw mais commencé euh, wax problème interne yi. loolu man man sama valeur est-ce que xam nga laajuñu la loolu. Ah, non non ah, loolu man laajuma la loolu. laajuma non non ma. non loolu nga ma laaj man man man sama valeur dama bëgg. ci li ma lay wax nii ci valeur la bokk. non si valeur xam nga pourquoi mu bokk ci valeur. waaw ci transparence la bokk. sa à dafa am ay nit yoo xam ne dañu bokk ak yow parti bi mhm. am ñoo xam ne ay sympathisant parti bi lañu am ñoo xam ne sa génn ci parti bi neex na leen mhm. am ñoo xam sa génn ci parti bi neexu leen kon man pour man c'est très important pour nga wax ni lii moo tax nga génn ci parti bi uniquement pour l'opinion ñu xam loolu c'est important mais ñaata nga gis ñaata nit non non non loolu moom loolu moom information la waaw déglu ma dafa nekk yoon pour nga jox ko nit ñi waaw léegi déglu ma ok xam nga il est clair que sama génn PDS am na pàcc boo xam ne ay problème interne sama génn nag c'est pas exclusivement dama am ay problème interne PDS moo tax ma génn loolu tam na bëgg mu leer dafa am ay compilation de faits ay compilation de motifs yoo xam ne ñoo tax ma génn PDS si loo xam ne nag problème interne la PDS danga may may rek. waaw maa lay déglu man kay dama lay déglu. danga may may rek. ah bien sûr. en tant que koo xam ne nekkoon naa fa. non may ma rek mu neex. dama lay mu neex gën ma wax ak sénégalais yi mu naqari du fii laay ñëw toog di ko wax waaye jàpp naa ne bu bu mu amee ay question yoo xam ne intéressé na ñu may àndal intéressé ñoo xam ne ñoom laa bokkal mbir mi waxtaan naa ci ak ñoom ba bu may jël décision ma jël décision donc loolu jeex na mbir mi bu may génn PDS dama génn si yar ak teggin ñoom ñu may ma respect ba dëggoo benn instance taxaw wax. man ma may leen respect tamit non non non non man ma may leen respect boobu dama bëgg nag tant respect boobu mi ngi am suñu diggante man ak sama ancien parti vraiment ne le prophète rek man maa jël sama décision maa jël sama engagement loolu am naa ci liberté. d'accord alors Toussaint lan ngay wax ci ñi jàpp ni yow da nga ko matérialiser rek. il trois mois je pense ci ci ci mois d'août bi la suma ma juumul da ko matérialiser mais bi nga génnee parti bi yàgg na bi nga ignorer parti bi nekk ci yeneen activité yàgg na. cest à lan nga mën tontu ci loolu. Ah, lan nga mën a tontu ci li nga xam ni c'est juste rek démission bi danga ko acté y trois mois mais y a plus d'un an ou deux ans ci ginnaaw mais yaa ngi woon ci leneen quand même. toppatoo parti bi. yu ma koo xam ne jël na si parti du jël si xaalisam loué siège di ko fay ànd ci ak ñoo xam ne ñoo bokk parti bi di doxal à Ziguinchor koo xam ne gën na si parti bi du engagé wu campagne locale gën ñi ci alalam def ci loo xam ne. mënoon na ko jël teg ko feneen waaye def ko ngir parti bi. donc non non non non foofu si y a un problème quand même foofu y a un problème. ci liste départementale bi am na loo ci def mais commune bi am na loo ci def loo xam ne ñoom apprécié wuñu ko itam. xam nga loolu bugg ah, ma opportunité <laughs> ma leeral ko vite fait et bien fait. commune bi da nga ko bëggoon bàyyi ah, Ousmane Sonko. amuloo loolu par exemple présenté wuloo ci liste ñu ngi toog di ko xaar déglu ma. loolu loolu aussi dafay jox dëgg ñi jàpp ne yow pare woon nga ci parti bi bu yàgg déglu ma dama koy wax ma évacuer ko xam nga loolu loolu débat la boo xam ne moo tax ñi ci bëri dañuy dugg ci appréciation def erreur dama bëgg ñu commencer ci début bi d'abord bala ngay comprendre pour Sénégalais yi tam comprendre man sama conception politique en tant que ku nekk opposition dafa mës a nekk ñu ànd booloo contre le régime en place mais pas en solo. mais ma mais ma mais ma mais bu ah, ko def en solo non mais ma. damay ñëw mais bu ko def en solo. déglu ma danga may déglu danga may ah. déglu. donc buñ ci nekkee ci opposition ma def ci analyse bu am solo. nga ne ñaan Ousmane Sonko non de soo ma mayee rek sénégalais nañ dëgg nañu comprendre. soo ma bàyyiwul ma développé. Ah, baal ma baal ma allez-y doo comprendre. d'accord merci beaucoup allez-y. ñun ñu nekk PDS. Mhm. ñu am ay jafe-jafe ak régime Macky Sall amul lu ñu deful xeex ba sonn marche ba sonn. mu musuñu arrivé à ce que Macky Sall comprendre ni dafa doon doxal démocratie si réew mi parce que muy ngi utiliser justice contre le PDS PDS amu ci woon pexe Khalifa Sall ñu jël ko dugal kaso waa taxaw xeex ba sonn mënuñu am ndam si kaw Macky Sall parce que boobu ba léegi qu'on le veuille ou pas doole bu opposition amoon permettre kon parce que ku ci nekk yaa ngi sa boor di jéem waaye antuwul ma jàpp ne si langue politique bi opposition dañoo war a ànd def say waaw faire face au ok ma xëy bés bind ko déclaré ko ne bu ñu bëggee faire face à Macky Sall ñun dañoo war a ànd ànd boole suñuy doole waaw léegi loolu terewul nag waaw ni ñuy renier seen bopp mhm. bu jotee bu laaj voix jotee élection présidentielle nit ñi mën nañu dem ku ci nekk nga wax ak sénégalais yi mais balaa nga egg si présidentielle dafa am ñaar élection yi am solo. non man local laa local ak man local laa local laa rek non bàyyi ñëw. man ñëwaguma sa législative non dinaa ñëw mais il faut il faut que ma expliquer la. Ah, mais euh, ñaar dama dama ne dafa am ñaar yu am. muy local ak législative bu ñu bëggee ñun bu doon suñu option mooy en tant que opposant fexe ba. lu fi am dak mooy génne régime bu fi nekk dañu war a fexe d'abord collectivité yi nga xam ne régime yor na ko mu perte ko boobu benn objectif la deuxième objectif mooy fexe néewal ko doole assemblée comme ni mu amee nii actuellement boobu deuxième objectif la troisième objectif mooy ku ci nekk boo demee élection présidentielle boo jiitoo ñeneen ñi ñëw jàppale la man sama logique moo nekkoon loolu mhm. loolu bu ma ko exprimer ñi dem local mu am ci ay ay difficulté ba fu ma bokkoon ànduñu ak beneen parti opposition bi muy yeewi mhm. loolu bu mu amee man dama la koy wax man j'ai toujours travaillé pour que PDS ànd ak beneen euh, beneen frange politique bi ma nekkoon ci acteur bu doon vraiment <clears throat> wax ay position ñu ma ko war a wax ne leen lii moo gën pour yooyu parce que ñun ay opposants lañu a dañu mën a ànd buñ ci demee ba amul accord ba ànduñu ñun ba léegi ñu exprimer volonté yaa ngi may dégg bu baax ñu exprimer volonté dégguma rek non même ñu exprimer volonté maa lay déglu aussi waaw non ba il faut que ma développer parce que dafa am solo ñu exprimer volonté ànd ak ak opposition bi ñu am fin de non recevoir yaa may dégg donc bu ñu amee fin de non recevoir ñu waajal dem suñu élection suñu bopp bu ñu demee nag Ziguinchor mu am si diggante bi lu xew lu xew mooy Ablaye Balde dafa nekkoon si mouvance présidentielle mu mujjee am désaccord ak Macky Sall. Mhm. mu génn solliciter suñu ànd. Mhm. bu mu ko waxee te bizarrement suñu parti defuñu fin de no recevoir. Mhm. ñu ne ko ah kon bon loolu c'était pam du loo xam ne man sama coobare bopp bëggoon naa ànd ak jamono yi ak ak moom sama choix moo nekkoon àndoon ak opposition bi mais comme ñëw na te ñu jàppoon ni la parce que génn na ak bàyyi bàyyi na euh, nguur gi wax nañ am na lu mu lu mu wax si si Macky Sall ñu ne ah kon nañu ànd gën a affaiblir régime bi comme ça au moins mbir mi daal si opposition bi. Mm-hmm. d'accord ànd ak Abdoulaye Baldé lu ci am nag mooy bu ñu demee. ba waxtaan ñu am benn premier désaccord mooy moom dafa bëggoon nekk euh, maire mu demandé jël 60 pour cent des conseillers ma nekk loolu mooy yoon da nga war a majorité bu doon yaa gagné. ñun ñu ne ko mu ne ñu ñun ñu jël président conseil euh, départemental ñu ne ko d' accord mu ne mais bu boobaa ñun dañu dañ ci waroon am euh, quinze pour cent. xam nga loolu yenu maanaa munoo nekk président conseil euh, départemental boo pare am ci 15 pour cent des conseil ma ne ko non lu ñu la may yow pour nga am 60 pour ci commune bi mais ñu ñu am 60 pour cent euh, ci département bi parce que bëgguma nekk ëllëg président conseil départemental boo xam ne tam beneen parti moom tënk donc loolu bu mu amee ñu am ci désaccord ñu ne ok dañu différé Balde dina tran après dinañu tranché ndeket ci diggante bi Ablaye Balde dem na négocier ak beneen candidat te waxuñu ko. muy ban candidat. kooku moo mujjee nekk euh, mooy Moussa Moussa Diédhiou. Mm-hmm. donc ñun ñu ngi xaar chaque jour ñuy wootee dina ne bon kañ la defar liste yi ñu xaar xaar ba moins de vingt quatre heures dépôt liste yi Ablaye Balde informé nañu ne ñu non finalement dañ mën a yéen da ngeen dem ma ne ko mais yow quand même munoo taxaw fii nañu ñun dañoo dem. ma ne ko mais comme que loolu la mu ne waa mais mun ngeen ñëw ngeen nekk adjoint mais ma ne ko non man. sama principe politique mooy. Euh, parole donnée rek. donc loolu bu mu amee. nga battre campagne pour Ousmane Sonko après nga pour Ousmane Sonko non ma mais pare gu ma. may ma ma damay damay loolu bu mu amee xam nga je suis à moins de 24 heures de dépôt des listes comme bu ñuy dem alliance munoo jël munoo dossier complet yëpp da ngay jël benn pàcc parce que keneen ki day investir keneen investir donc on avait en moins de on avait pas tous on avait des dossiers incomplets pour pouvoir investir la commune et ma ñëw ma woo fédération bi ma ne leen de ñun de am nañu situation parce que à vingt moins de vingt quatre heures war nañu déposer liste yi te ñun ñu suñu précaution jël liste ñu kii euh, comment dirais-je dossiers yi bëre dañu bañoon jël sa dossier après ñu la bokkoo xam nga des frustrant <coughs> ñu ne kon on a deux choix un seul choix soit ñu dem ak dossier yi ñu yor yooyu yoo xam ne mën na mot. ñu dem ci département bi soit ñu dem ci commune bi bàyyi département bi am ah, mënu ñoon dem ci ñaari parce que on avait des dossiers incomplets. d'accord après ngeen préféré département bi ñu préféré dem ci département xam nga lu tax parce que objectif parti bi si lu ñu discuter dañoo ne bu ñu demee commune rek bulletin parti bi commune bi rek lay nekk te bu boobaa dinañu réduire visibilité parti bi ci élection yi comme que ñaar choix la ñu am te jàpp nañu nii. visibilité parti bi bu ñu ko defee si département bi commune bu nekk si biir département bi suñu demee ci départemental bi dinañu am suñuy liste boobu benn la donc on a déposé au niveau du département yeneen commune yi yu Ziguinchor yi àndoon nañ ci ba pare ak euh, jamono yu ak ab euh, Ablaye Baldé ba def liste ci commune lu euh, mu tuddaan ko Boutifa Camara d'ailleurs coalition boobu PDS ak Baldé ñoo gagné def liste commune ci commune Niassia coalition boobu. PDS ak euh, kii ñoo ñoo gagné euh, ak Balde léegi Enampor Adéane ak euh, nu mu tudd ñaagis ñaagis ñu amoon fa ak quelques difficultés ñuy dem ak a beneen candidat bu fa nekkoon indépendant yéen ñaar communes yi ñu ñu retirer suñuy nit def suñuy liste bopp léegi bu loolu amee. xam nga nee a la non mais ma rek ma ñëw bu loolu amee ñun wax xam nga fi laay daaneele mais ma rek daaneele bu loolu amee donc en toute responsabilité la ñu ne suñu liste suñu yi motul donc ñu dépose département bi parce que département bi dafa yomb déposer parce que ku ci nekk bu àndee si cinq communes yi di nga commune bi on n'a pas mënuñu motal d'accord bu ñu demee ba pare ñu déposer liste yi ñun ñu am déposé wuñu commune mais ñu am ñu war a mën a am choix am taxawaay politique taxawaay politique bi xam nga mooy lan man opposant la nguur gee fi nekk ak opposition donc ma jël samay responsabilité yi mat sëkk waxtaan ci ak fédération bi waxtaan ci ak ay li ne leen c'est vrai am nañu difficulté posée commune parce que daf dafa am lu xam daf ñu bett jël ñu woon ay précaution pour mën a am li si mot lu ñu bett nag taxul ñi mën a nekk à l'isolement si décision boo xam ne mooy citoyen commune Ziguinchor dañ cee bokk ma jël décision ma ne on va soutenir Ousmane, Ousmane Sonko parce que c'était le candidat de l'opposition d'accord ouais. alors euh, fi nga daanelee dafa am solo est-ce que xam nga loolu dafay jox dëgg